mbokk Sénégal yi toog ci Gàmbi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam maa ngi leen di gërëm te di leen masawu coono di am mbégte lool ci toogaat ak yéen tey fii ci Banjul nuyu coalition Benno Bokk Yaakaar

Nous faire de doomu Sénégal yi nekk Gambie dootuñu fay ci école bi ñu de fay évidemment l'olu, li muy indi ci question moi, ban statut l'année d'or jox enseignant yi nga xam ni ñoo war a ci école bu Gambie donc lolo, Inch'Allah... Donc... donc euh, danañu xool le statut pour le moment mën a ci

jusqu'à 100 millions mais pour loolu il faut vous di rembourser tout dit parce que crédit là. en fonction de remboursement on pourra vous faire un nouveau crédit de 100 millions Ça dépend dépendre si ensuite pour Gourmi, le que je secteur élevage C'est le ministre de Mme madame Aminata Mbengue Ndiaye

Nous avons aussi un programme au Sénégal, une subvention qui est moteur au Gali. Parce que le moteur est 1,3 million de CFA. Nous avons le gouvernement 1 1,3 1 million 300. Donc, nous avons 300 000 dongles pour le moteur qui baisse. Lolo aussi pour faire que nous des pêcheurs war ngeen mën a nekk éligible dans ce programme parce que sénégalais bi nekk Gambie ak sénégalais bi nekk ci biir Sénégal mën nañ leen boole àtte donc war ngeen mën bénéficier wu ci loolu am na aussi ay car yu ma doon jox ci Dakar dem dikk ma tuddee ko léegi Afrique dem dikk war na am Gambie aussi benn bus boo xam ne des liaisons Banjul Dakar tout comme yeneen dëkk yi ci gàttal wàllu wér yaram li ma wax léegi li ambassadeur wax joxewuñ ko pour politique c'est un appui à l'association des Sénégalais pour nous, tambali sen caisse pour une mutuelle de santé ko defee seen paj ci hôpitaux yi fii ci Gambie ngeen am loo leen tàmbalee li ci des ngeen xool noo leen di organiser wu donc loolu dañ leen ko doon jàppale rek euh, kon ban loolu laa bëggoon wax di leen xamal ni ah fu ñu jëm moom Gambie jarul ñu naan leen taxaw leen ndax da ngeen taxaw ba pare da ngeen a gagné déjà ba pare 60 bureaux de vote ngeen gañe lépp kon gàcce ngalaama loolu mënuma ko ci bañ a ñambaas sant leen gërëm leen waaye ñaaxaat leen nag ci fa ñu jëm ndax loolu tam comme gisee yombul alors maa ngi wax ngeen bàyyiwaat ci seen xel bu baax a baax waxtaan ak ñëpp jàmmante ak ñëpp wane itam yéene yi ñu am ak liggéey bi ñu tàmbali jëmale ko ci askanu senegal te am nañu ci yaakaar kon ci loolu lay yem di leen sant di leen